ngir fexe ba askan wi jóge ci jafe-jafey location bëgg-bëgg njiitu mi mooy askan wi ku ci nekk am sa kërug bopp ba waral mu indi ay solution ki ko xamle di Ousmane Wade mi administrateur du fonds pour l'habitat social loolu dafa nekk une solution conjoncturelle mais président de la république yéeneem mooy une solution structurelle luy yàgg yombalal sénégalais yi ñu am seen këru bopp de sorte que location boobu ngay wax ñun buggatuñ mu nekk location simple mais mu nekk location vente sénégalais boo xam ne mi ngi fay këram bu ko fayee ci diiru fukki at moom këram ñun ci loolu la nekk nii et je pense que structure bi ko war a doxal tax taxawal nañ ko ba pare je pense que dans les prochaines semaines dina jënd kër yi une partie kër yi nga xam ne pare na jox ko sénégal yi en système de location vente plutôt qu'en système de location simple. Félix Mboub mi njiitu kuréel gi ëmb. locataires yu nekk fii ci Sénégal. di xam xamle ni naam projet cent yi lu baax la. waaye lu wax bi wàññi njëg lu waaye fii ci Sénégal. waruñu ko woon a remplacer. loolu solution à long terme la logement yi ni dañuy defar nii solution à long terme la. mais ñun actuellement nii pour soulager les locataires dafa am solution boo xam ni il faut ñu jël ko. le plus rapidement possible ñu daal di koy jël moo di lan waxoon parce que prix gars yi danoo exagéré dafa jékki dayoo léegi comme prix yi dafa jékki dayoo mais nan lan waxoon c'était une bon chose sax peut-être bon mënoon noon mënees sax na ko woon a daal dix pour cent ak vingt pour cent nan ko def def yóbbu affaire bi assemblée maa ñu génnee ab décret encadré ko nit ñi appliqué ko parce que yaakaar na kenn du ko tas. locage logement yooyu ñuy joxe les logements sociaux mooy solution durable. ci fàttali loi bi wàññi njëg luwaay fii ci Sénégal njiitu réew mi président Macky Sall daf ko remplacer ab ab décret doon lu neexul benn yoon locataires yi ndax nee nañu sonn nañu.